أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وسبح مرات على سحن نسل ويوسف أربع مرات وصل wa sidd salaasina alal mabarra wa sitta maratin halal mabarra mboole mi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay bu baax kenn ku nekk ci yéen di ziare sunu kilifa diine yëpp di leen jox seen wàccuwaay waaye di ziare sunu kilifa aada yi yi nga xam ne ñoo bokk réew mi di nuyu waa senegal bu baax a baax waaye di nuyu it waa bitim réew te di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal sunu bopp mbokk yi bu ngeen xoolee suñu jotaay yaakaar naa di ngeen war a xam fan la ñu bëgg a jëm muy jotaayu xam-xam jotaayu diine waaye waxtaane ñaan waxtaane asraar ndax ñaankat yi bari nañ lool kii ñu ñu fi fekk si tey nag kenn dootu leen dootu leen ko présenté ngeen baal ma muy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran babullahi Cheikh Ibrahima ginnaaw ba ñu la la ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam taala wa barakaatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amiin yaa rabbi bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim izaa jaa'a nasrullaahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fa sabbi bi xamdi rabbika wastaxfir innahu kaana tawaaban Seydina Ousmane ñi ngi lay fay nuyoo ñi ngi nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñi ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi ñuy sibur fii ci réew mi ak bitim réew ñi ngi lay dalal fii ci baabullaahi di la wax ne bisimilah mën nañu jublu ci waxtaan wi malaka xal bi hubbu jundillahi alayhimu salaamu fadlillahi jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran secret alquran secret yi bari na Cheikh Ibrahima yëpp kenn mënu koo sax waxtaane ci benn jotaay waaye mu am ci secret bu siiw boo xam ne yaakaar naa ne da nga ciy def ak di ci dindi yàgg nga ko wax ma bëgg nga dimbaliwaat ci doomu aadama yi muy secret bismillahi rahmaani rahim. Sidna Ousmane. secret boobu nga wax muy bismillahi rahmaani rahim suñ boroom mi sàkk jaam ñi moo leen ci dimbali ñoom ñépp yàlla moo xëy yónni Seydina Jibril ci yonent bi ni ko boo demee neel nit ñi kenn ci ñoom ba mu commencé ti lan te waxul baat boobu di bismillahi rahmaani rahim uh-huh. nga xam ni ci yoon moo waroon a nekk baat bi ëpp luñ koy sikkar ci àdduna ndax lu nit di commencé lu mu mën a doon rek yàlla nee na ko commenceel ci bismillah moom bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim dajalewoon nañ mbooleem olamaa yi ni dinañ ci faj mbooleem aajo bu jaa jaam am bépp nit boo gis mu bari lu muy sikkar bismillahi rahmaani rahim taqalikoona ak ñàkk taqalikoo ak ñàkk a faju aajo moom aajom day faju te yàlla koy faj moom bisimilahi rahmaani rahim mhm. bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba nga xamee ni yàlla bëgg naa dimbali jaam ñi boo gisee ma dégg ma ubbee isaa jaa wal fatt war ay tan naasa loolu rek moo ma ci intéressé yàlla bi mu bëggee dimbali nit ñi di leen ubbi mu leen ubbee fu mu leen orienté ci diineem ji diineem jooju boo agsee ba ci diine ji lu lay ubbil kalimatullahi mi baatub laa ilaha illa boobu ci boppam nga xam ne mooy ubbi dina jépp moom bisimillahi rahmaani rahim moo koy ubbi allahu akbar bootu ci bisimillahi rahmaani rahim ubbi <laughs> <laughs> bismillah nit pour mu dugg ci diine lislaam baatub laa ilaha illallah moo ko ciy dugal baatub laa ilaha illallah boobu pour nga ubbil ko nit ki nit ki jot ci dugg ci bismillah lay njëkkee wax lay njëkk a wax waaw nit ki bu ne bu doon daa dog ci jeneen diine ñëw di tuub bu toogee da nga naan ko neel bismillah mu ne bismillah nga ne ko seedeel sahidallah mu seede sahidallah ngeen ko seedeel wa ashadu anna muhammad rasulullah mu seede loolu ñu ni ko yàgg ci biir diine ji bu ko xasee wax rek dugg na ci biir diine dugg na ci uh-huh. kon baatub laa ilaha illallah màggam nga na mu toll kele bi koy tijji moom balaa tijji lenn mooy baatu bismillahi rahmaani rahim moo tax bismillahi rahmaani rahim mbooleem lu yàlla bind dëppoo nañ ci ni ñoom ñi ngi si karbaat boobu montagne mala yi jant bi asamaan si lépp lu yàlla bind d'accord na nangul na yàlla te du mooy yàlla waaye moom ma ngay sikkar baatu bismillah ak subhanallah yépp a koy ñëpp ci sàbbal yàlla <laughs> moo tax suñ boroom daal malaayka yi dañoo xëyoon rek ni ci am tiit tiit lool ñu ni waaw suñ borom leen yéen lu leen tax tiit seen tiit mu tar mi ñu ni dañoo gis ni ñun nit dong nga la tooñ amul lenn lu ñimee tooñ yàlla amul lenn lu ñimee jaamu yàlla loolu nit nit kese moo am sañ-sañu toog ba ci yàgg du jaamu yàlla nit kese moo ñimee xëy tooñ yàlla ne ci kaw suuf si suba ba ngoonte dara ko fekk malaayka yi ñoom looloo leen tiital ba ñu mujj def ak kuréel goo xam ni dañuy jéggalul nit ñi ñi mu ñoo wax yàlla jéggalal nit ñi waaye danga naan ñi ngi sàkku ci yàlla yàlla jéggal jàmm. allahu akbar moom doomu aadama moom doomu aadama kon doomu aadama xam nga mbiram mbiram mbiram bari na ak luq njuur waaye suñu borom subhaanahu wa taala ne woon na yonent bi uh-huh. nit ñi dajaloo nañ ni la man lañ gëm ak yow ma bëgg nag nga def attention ci nit ñi nit ñi gëmuñu ma man yàlla gëmuñu la gëmuñu kenn àdduna dong lañ gëm waaye nag nang ma leen fàttali leen bis bu diis mi ci sama kanam ak ñoom te bis boobu dina métti ci ñoom de moo tax koo wékku ku dul yàlla bis a ngi ñëw di ngeen wéet di nga sonn trop ndax alxuraan teel na laa wax ni la bakken mënalul moroom bakkenam dara yow may si laa ilaaha illallaah yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wal amru yow ma si nit la yàlla dong moo mën a sowee jaam bi waaye keneen ku dul yàlla bu ci duggee dina we xatt ci moom ndeysaan nit nag daa tollatul ci jamono fuñ ko war a dëkkee di ko nax rek génération bu ñëw borom xam-xam ya fa nekkoon ak borom alal ya ak gouvernement yi nga xam ne ci ay tappale dong lañ nekk ndax nit ña dem seen yoon loolu day jeex de jamono jii baatin ubbi na ay buntam saayir ubbi na ay buntam xam-xam nee na fàng dang loo wax waaye mu tàppe da minutes ne la lii du laay ji lii moo koy tontu nii la ma tontu wala nañ dem Google xanaa xamoo ne Google malaayka la. moom jëmmi Google. moom jëmmi Google malaayka la muy leeral lépp. suñu <laughs> foofu bëgg naa nga taxawlu fii leeral ñu foofu tuuti rek <laughs> <laughs> ndax loolu naqaree dégg na. dama la jëmmi Google. malaayika la muy leeral lépp lépp loo ko laaj mu indi la cee dëgg la ca dul dëgg mu leer la ko mu leer nañ ñi loolu nag rôlu malaayika la moo xam ne suñu borom da ko jaarale ci Google <laughs> allahu akbar <laughs> borom xam-xam mënatuñoo nax kenn article boo ne article sàngam la ñu la nañ ko tàppe boo ko tàppe ñu ne monsieur le président seetal beneen article waaye bu dee article onze bii ngay wax moom demeewul nii boo ñuy bëgg a indi la tappal nag ñun la google ang fii la ilaha illallah malayka la moo xamante ni si nii day dox ci kàttanu suñ borom gi waaye ñi àgg foofu xam nañ ni yii ñuy jumtukaay yu ñuy jëfandikoo yépp falaax yi ci rek la bawoo mhm, ci yàlla rek la bawoo bi fadlillahi ndimbal la ngir jàmm mhm. ci fi lawhil jarra teg nañ ci suñ bët yi waaye ñoo ko jéemut xajale suñ xol bi xayri mi haadin duna makrim wala xawfi allahu akbar mhm. ah? ah waaw lii daw ñu koy gis nii ñun ñoo ko nunguta accepté ci ni ko yàlla amalee bu ko orienté suñ bopp te demee noonu waaw ah, tey doo bëgg ñu waxtaan ci xam-xam <laughs> waaw moo tax suñ tubaab bi ñu ko mm. waxee ni ko yow day mm-hmm. dañ laa gis ci réew mi li ñëpp mënul nga ne man nga ko sa gars yi nag teg la foo xamante ni fooy mooy fu kenn aggul ñu ne yaa fa àgg Sëñ Tuubaa ni teg naa fañ ma ah, fañ ma teg ñoom weesu naa foofu noonu li ngeen yaakaar ni xëm ma ko xam naa raw loolu waaye nag yàlla daa def ci sa ci ci ci yéen seen jëmm yi samay mbir di daw ci seen xar kanam yi gën a gaaw weer week jant bi nunguwu leen koo gis te dë gëmmu teewu leen koo gis lépp yàlla dina ko teg seen kanam mu mel ni écran ngeen koy seetaan. laa ilaaha loolu mooy fi lawhil jarra maanaam day day daw nga koy gis di ko weddi muy gën a leer. mbirum <laughs> mbirum yàlla noonu la mel ci jàmm. kon Seydina Ousmane nit ni ko suñu borom tënkee ci diggante bi muy dund ak bi muy dee ndax ko waru fi woon a xaj. rawatina nag muy dee diggante boobu ndax ko waru fi woon a xaj rawatina muy ab jullit. rawatina muy ab jullit kon gan sàggante la nit sàggan bañ koy nax nit bu dee dañaa nax ci sa adduna nax la sa digganteek sa boroom nax la ci jëmmi bopp yow boo dee foo loolu moom a jaaxal lool waaw moo tax bépp taalibe boo xam ne jébbalu na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te gëm la yàlla wax ci njébbal la ndax yenent bi yàlla dafa ko wax ni ko yow day yonent bi gaa yii nga xam ne jaayante na ñoog yow na wax leen ni leen jaayantewuñu ak yow man yàlla lañ jaayanteel te man yàlla nag yëkkat naa sama loxo tiimale leen ko protéger leen ñoom ñëpp. Hmm? moom sunu borom. waaw. Mm-hmm. yàlla loolu la wax yonent bi kon ñun jullit ñi yàlla lañ jaayanteel directement gannaaw ba nga xam ne dañ koo jaaral ci yonent bi yàlla nag boo wakkirloo ci moom. lépp loo xamante ni si ni du yàlla boo jëtlee yàlla ce moom rek mu dox seen diggante ak loola doo ci am benn jafe-jafe. te lépp mu ngi mi ngi mi ngi basé wu ba tey rek lépp mi ngi basé wu ci bismillahi rahmaani rahim. <laughs> non bismillahi rahmaani rahim day commencé mbirum nit te moom moom moo koy moo koy tëj. fatihatul kitab moom la ñuy wax ummul qur'an bu ñu waxee nag yaayi alqur'an nit taxul ñuy wax ndax alqur'an a gën nit ñi. alxuraan nag buñ tànnee lépp ni ko yow sa waajur a ngi nii ma ni nit taxul ñuy wax doomu aadama dina dem ba toll foo xam ni moom leerug doomu aadama dañ koy dugal ci biir leerug alxuraan muy door a mat loolu mbirum bàttin la ndax booy topp xaqiqatu muhammadiya di nga dem ba nit ñu jël ko dugal ko ci yeneeni leer door koo mën a mottale muy mëdd leeru rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. mooy leer giñ bindee doomu aadama yi ahmadiya googu dafa am geneen leer guñ tibb bind ko ci leer yooyu la ñuy jokkalante ba mu doon leer suñu borom doon genn leer gi ma ne buñ ci bëggee génnewaat leer doomu aadama dinañ ko dëbb ci biir alxuraan mu koy door a tasaat gaay allahu akbar ay waaw moo tax suñ tubaab waxoon ni man de yi bi ma demee ba àggal sama bopp ci yàlla xam ko yàlla moo ma boolewaat ak yonent bi yonent bi nag ci la ma door a boolewaat ak suñu borom nag may door a xam mbirum gaañ yi ndax mbirum gaañ yi ci yonent bi lañ ko jaarale sallallahu alayhi malaayka yi ñaata temps leen suñu borom bind ñuy fonctionné te turi garab yi doo nga xamuñu ko waxuma la ak di xam leneen waaye waxal la ma aadama asmaa kullaha keroog bi yàlla bindee aadama wàcce ko ci ñoom keroog leen aadama yi door a xamal lii lu mu lii lu mu ñu naan ko ñun gisoon nañ ko fi junni at seen ko nit xamuñu ko mu leen koy leeral di leen jàng di leen dicté di leen xamal lan mooy xam-xam kon xam-xam suñ borom da koo def ci biir nit waaye nag ñun borom dafa am yaakaar ci ñun ba tax mu ño nome ñu ay xalifa kenn ku ne mu dugal programme boo xamante ni si nii mën naa lijjanti àdduna bi ci yow kon boo xoolee yow ba lëj fi yow yaa am problème waaye du yàlla mi la sàkk <laughs> bu ne yàlla lijjë dugal na ci biir bopp bi programme bu mën a lijjanti adduna yow boo liggéey nag yow ba mënul lijjanti sa bopp yaa problème waaye du suñu borom mi la sàkk kon loolu lax ndax kon moo tax kon suñu mag ñi daan tërbiya xale yi di leen jàngal ngir def ci ñoom comme li nga wax nii waaw nit ñi nag laaj nañu ndax doomu aadama daan waaw nit laaj nañu defaraat ko orienté ko force bi nekk ci biir doomu aadama ñu bañ koo nelawal te réveillé ko ndax li gën a yées ci doomu aadama mooy nga ragalloo ko nit dañ koy ñemeloo képp koo gis mu ragal doom dara. ba dee boroom xam-xam bii dëkk Louga di sëñ Sàmbay daana wax ni àdduna yaafus yi mënoon nañoo faatu te xam ne duñ duñ mës a bokk te wax na ne adduna lépp xëccoo la xëccoo boobu nag daan nag coono. ah ne adduna dañ koy xeex. waaw Seydi Hadji Malick Sy buñ lay nettali fi mu jaar li mu daj da ngay mujj nga ni waa lu li tax lu tax mu daj lii mooy nekk sa question Sëñ Tuubaa buñ lay nettali ay jaar-jaaram ak lim daj. li tax mu daj li yow mooy doon sa problème waaye liñ ko fayee du doon sa problème ndax xam nga ne kii mën naa fay gu ëpp gi waaye lu taxoon mu daj ko ak bi mu koy daj nu mu meloon ba mën a daj lii ngay wax. waaw waaye nag booba fasbiru wa ahsinu illa ma asa ilaykum yéen a ju yéen a ju kawe ju rëy la ñuy ñoom moo tax bu ñu pare bu leen suñ borom di dimbali leen di dimbali ca idfax la ti hi hi ahsan fa la la seen a bay na ko bay na wala xadaawa kaana huwa aliyul amin wa maa yulaqaaha illa la seen a sabaru wa maa yulaqaaha illa suu asil asib allahu akbar xam foofu la yàlla jaar ak yàlla yi pour defar leen moo tax nit uh-huh. nañ ko delloo si ci baat baatu mu nite nit ki nite nag mooy kiñ gindi ci yàlla ndax lépp looy taxawalal nit te taxawaloo taxawaloo boromam ci kanamam deseel nga ko àq nit ñi nañ leen xamal yàlla te sikkar loo leen tur yàlla te tarbiya leen te defar leen loolu la jamono laaj waaye buñ dëkk rek ci nax nit ñi di leen provoquer di leen peeg di leen defi couleur di leen di leen jaxase di leen féewale àdduna laajatul loolu adduna dafa laaj dimbalante Seydina Ousmane. dëgg la adduna dafa laaj doo booloo nekk benn. adduna dafa laaj taxawu lislaam adduna dafa laaj roy lu baax adduna dafa laaj moytu lu bon adduna dafa laaj maandu waaye adduna dafa laaj liggéey ngir am. dëgg la nañu xormaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xool li islam ñu tegu ci teg ci ndaw ñi. te wàññi caaxaan yeeg. Mm-hmm. provocaan yeeg wax lu dul dëgg li amul solo. réunion wii ko loo dañ faw ñu wéet ak amul wéet bu doon wéet duñ ko bind ci téere teg ko mu ni fàng dàng ñëpp mën cee jot <laughs> buñ nodde ca jàkka ja la ñu daje imaam bi jiite lu mu def ñu gis ko lu ñuy nëbb ci lislaam amul ilaaha illallaah caaxaan ci réew mi allahu akbar sëñ Moustapha Saliou nit ku baax doomu sëñ Saliou fii ci Touba nee na jenn dëgg am ba juróomi ngir amee ngeen waroon a tey ci ngir yi gën dëgg la lu ci ci ngir gu nekk bëgg a wootee dëggu boppam. caaxaan baaxul sëñ bi. la ilaha nit mun ta nax nit barki dem wax naa la ko ci émission bi kuñ nax dalaa neex. nañu taxawaat réew mi waxtaan te yàlla tax xool nuñ dimbalantee teeta defar population bi defar société bi orienté ndaw ñi woo leen ci ak dëgg mooy di leen sikkarloo tur yàlla di leen jaamuloo yàlla di leen julliloo ci yonent bi fonk loo leen seen waajur di leen liggéey loo te itam di jàppalante suñ biir ku feebar ñu taxawu la faj la ku liggéey ñu jëm la koo wutal ku ñàkk ñu wutal lam xëy bu nawet jotee boroom barke yeeg borom xam-xam yi waxtaanee mbirum newet dimbali ci baykat yi. ci saahir ak ci baatin. ci saahir ak ci réew mi bari na ñoo xamante ni si nii faju mooy seen problème ñu dimbali leen faj leen foofu la dëkk bi toll dëkk bi tollatul ne fi naan maaman lii ak maaman laa sëriñ si yi nga xam ne nag ay sëriñ yi tariyaax lañu nañuy waxtaan ak ñoom mënoo jàpp ay reen di jamb di jox nit ñi te xamoo dara xam-xam dañ koy gëstu xam-xam mbirum lumière la bu yàlla di def suñu borom di def ci nit nañ gën a waxtaanee xam-xam gën a ubbi réew mi gën a ubbi débat bi ñun ñi yàlla dénk xam-xam doxloo ñu dénk ñu tuuti wërsëg. Uh-huh. ñu gën a jege population bi. ak yiir leen suñ bomp waaye nampatal leen ci yàlla nampatal leen ci dëgg xamal leen li ñuy sàkku nii la demee voie yi nga xamante ni moo ci positif ñu jàllale ko yu négatif yi ñu puus ko. alhamdulilah débat bi sëriñ nag dinaa ko ci réew mi. Uh-huh. ku dara bu yeboo nga nga xool foo jëm. dëgg la. waaw uh-huh. ah, sëñ bi tey dañuy waxtaan. ndax télé yi daaw ma leen affronté di waxtaan ak ñoom. Mhm. léegi dinaa ubbil samay buntu télé yëpp di ñëw ci kër gi. vingt quatre heures vingt quatre ñii faju itam dama amoon borok bu ma doxaloon sama digganteeg ñoom waaye ñëpp naan recevoir problème bu waaye am bu ko fi indeetee dinaa ko saafara dinaa ko wax nan lay def bañ saafara ko kon nag bunt yi tijji naa ko Seydina Ousmane. Mhm. képp koo xamante ni daal nee la amatuma accès ci sëñ Ndiaye ne ko yaa ko woo téléphone sëñ Ndiaye léegi toog na ci réew mi ubbi na ay buntam képp koo xam ne bëgg ngaa jokkoo ak Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran baabulaahi boo ko woowee wax ko sa aajo aajo jooju faju na yàlla defal na ko loolu jërëjëf aajo jooju faju na yàlla defal na ko loolu sang bi bi ngay wax ci biir wax ji dama cee for nga tudd ne nit ñi nañ leen di sikkarloo di leen tuddloo yàlla salaatu naari yu allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaat man taaman ala sayyidina muhammad allazi tanhalu bihi alxoqadu wa tanfariju bihi alkurabu boobu salaatu dañoo wax ni boo ci dee ñaan aajo fi nga toog di ñaan bala ngaa jug daa war a faju muy salaatu naariyu muy salaatu naariyu boobu am na ñu koy duggee xalwatu waaye balaa xalwatu gee man ñun leen génn leen wala boog ngeen wutaat yeneen aajo dolli ko ci waaye ji moom fajo na bu yàgg lu ko gën a gaaw ci ñaan amul moom salaatu naariyu jamono yama ci doon ñaan du jamono yi ndax man jamono yi ismilal ahazam lay sikkar ci jamono yii ñu toll. jamono yii ñu ndax day mel ne yow jamono ju ne ak la ngay sikkat waaw jamono ju ak lu may dóor jamono yee ñu génn siru Faatiha laa doon liggéey jamono yële ñu génn doon naa liggéey siru Muntawi te siru Muntawi diis na diis goo xamante ni si nii gars yi ñëwuñ ko song de. <laughs> yaa ngi dégg. dëkkul ne rek ku jug rek daal di koy song. Eh, siru Muntawi kenn du ku jug rek song ko. ndax dafa am ay leer yoo xam ni daal ni ci biir te leer yooyu leeru Seydina Ibrahima alayhi salaam la moo tax mu naan ko wa kazalika nuuru Ibrahima malakutu samawati wal ardi li yakuna minal muqinin kooku boo ko laalee te ci yenn dayoo yi rek mën nga faa jaare yow nekk nit koo xamante ni si ay gàllankoor da lay topp mm, mm, mm. yëpp liggéey ko fi Seydina Ousmane waaw ngi ci salaatu <laughs> naar yi waaw waaw kay fi mu ne su ma sañoon a wax mën naa ni bépp taalibe nga xam ne jokk na ci sëñ Tuubaa di am murit waroon naa sàkku ci àdduna lenn mu koy jafe ba mu des xaalis ndax li li indil alal nit sëñ Tuubaa da koo liggéey teg ko fi. sëñ Tuubaa liggéey na ko teg ko fi. waaw kon lan mooy jafe-jafe bi. lan mooy jafe bi ñenn ñi dañoo ñàkk xam ñenn ñi dañoo àggul ci moom waaye am na loo xam nag du ma ko wax ci biir émission bi waaye bépp murit loo xam ne jébbal na boppam suñ tubaab bu ma woowoon tey tey wax ak man tey tey ma jox ko tey tey loo xam da koy may alal tey tey. waaw da ngay jëfandikoo rek commencé déclencher kay moom kenn dut la tiit foo toll di nga am lu ñuy joxe adde di nga am loo joxe adde te adde di ñuy joxe boo am ak dogu yaa cay man sa mbir du am benn gàllankoor. loo duggit mu sotti. loo duggit xam ne sëriñ bi tëgg na ko ba mu leer nañ teg ko dama ne li sëriñ bi bind teg. waaw loolee may wax. te mu te mu bokk ci kataballahu yi nga xam ne ko nëbbu. man am naa yaqiinu di lijjanti ba jët ci leen lenn loo xam ni man sama bët tege na ci. bépp murit bi jëbbul ci sëñ bi <laughs> dama ne ñàkk moom wërtu nekk problème ci kaw suuf waaw moom daa war a yëm nit ñi télévision ci daa war a yëm nit ñi ci am am waaw loolee nag kama dama ne sirru boobu ku ma ci jotale nga dib taali bi addi ji ñuy joxe yaa ci man waaye génération boo bokk koo bokkal génération yaa koy dominer te te te li gën a garaaw ci mbirum sëñ bu mag bi mooy ginnaaw am am boobu mbaax gam la nëbbu ci suuf ak jege yàlla ga ci biir ba yooyu loolu loolu tamit lu doy waar la ndax moom day day jël lépp rek waaw sëñ Tuubaa dafa bind xasid ak sabun taq yi wax ni abwaaba kullu naari dañ naa ci bépp bunt sawara bu jëm ci woon sama gaa yi li mbindum Sëñ Tuubaa la moo ni abwaaba kullu naari bépp bunt sawara boo xam ne daa jëmoon ci murit man tëj naa ko taj juddu lii mu ni ma ma ma xëccal leen bi di dirhami wa dinaar yi mbooleem alal ju nit di sàkku xëccal naa la ko ba teg ko fa dama ne loolee sëñ bi wax man la ma ci gis sama ba tegu ca bépp murit bu jibbul ci sëñ bi ñàkk moo war a doon sa problème waaye am waroo ko def ndax da nga war am ba doyal doo jeexal dara. ginnaaw ba mu lu teggelee sawara. nga xam ne moom la ñëpp di daw teggil gàllankoor. gàllankoor soosu bukk sawara say lakke sawara soosu mooy tolof tolof adduna xat-xati adduna. Ah. sëñ bi daal nu muy waxee. ok <laughs> ok waaw waaw ndax suma kalaas gii nga xam ne seen njàng soriwul. waaw bu ñu déggee sawara dañuy jàpp ne sa waaw ndax nit ki adduna kon day am sawaraam. adduna nekk fi wara mooy mënoo fi dara rek dèjà yaa ngi sawara loolu la jënt du sotti foo toll ngay xalaat di dëgmal loo xam ne mënoo caa génn di dugg ci loo xam ne say nawal dañ la retaan yooyu yëpp ak xeetu tàbbi sawara wallahi wallahi tàbbi sawara yooyu ngay gis nag ci adduna sëñ bi génn ci tali bi allahu akbar waaye tëj gudu lii lay dimbali nit ci kaw suuf muy alal ak la sabab ci alal ak la man lépp suñ bi tàggatal na ko tali bi ma ne teg ca loxo lu yomb la te ku ma tàllal loxo ma teg ca loxo man. ah alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye yéen a ko déggandoo kan mbokk yi. mbokk yi lii la ñu mayoon ci euh, waxtu day mel na jeex na ñu ngi nuyu ak di jaar sunu caméraman bu tedd bi Alaaji Kan mu baax bi nga xam ne liggéey bu rafet bi image yi ngeen di seen moo ci jàpp macha allah barakallahu ak sunu équipe technique bi yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare. mbokk yi wasalaamaaleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba yeneen jamono incha allah